bisimila am mbokk ca Chine day ca feebar ba ah bu yeboo nga jëli ko de le quotidien yéene kaa ne sénégalais nga xam ne maanaam ñoom ñoo nekk ca waxaan gale ca doonu Chine waaw nga xam ne na foofu la jàngorooy coronavirus ca nekk day danañu xaar ba ca kanam de maar day taali waaw parce que président Macky Sall day waaw nee na Sénégal amul ay jumtukaay yu mu jëlee kon doomam yooyee laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah parce que maanaam indiwaat leen kon ci réew mi de matériel la laaje logistique maa la ko wax yoo xam ne nag maanaam Sénégal amu ko président Macky Sall yamu ca ndaxte il faut ñu am nag ay robalaan di ay avion spéciaux yoo xam ni kon ñoom ñooy dem ca bërëb boobee daal di leen jëli personnel boo xam ne nag bokkul ak personnel yi nekkoon ci compagnie aérienne yi lée xëj na personnel militaire Macky Sall yamu ca ndaxte président nee na te gis nga sénégalais yooyee buñ jógee ñu jël leen ber ne ci bërëb boo xam ni kon dañ koy équipé réew ko di yéene lii nag mooy wane ne président Macky Sall daal la wane na ko ci doomu Sénégal di étudiants ma Macky Sall day waaw daal dinay abandonné nag ay sénégalais kon ci woon gëlee ca duwàllu Chine ak seenu ëllëg waaw Boubacar Seye horizon sans frontière waaw nee lii nag mooy mandargal ne président Macky Sall kon dafa la ji dëggantaan njaay laa la wax te nangu na ko sax léegi ko yéene kaay ne xam nga président Macky Sall waaw nee na du naaw ak ropalaan yim Chine googee dem ko rey waaw Mbow ngir ñu dem na jëleli ko ab prix boo xam ne kon xuusmaa ñàpp ab prix bi ay explication mënoo di góo explication yi yomb daal yow ci jamono yoo xam ne sénégalais yi nekk duweelu ci biir réew mi ngi la ñuy laam-laamee wàllum dund gi lée ne dana ko yokk doy na waar li doy waar kay te moo yéene kaay nee waaw waaw ah, des day dañ leen di utiliser ni ay arme ngir wàllum santage ci kaw opposition bi di leen ko tiitale yow ay responsable yoo xam ne kon ci parti présidentiel bi lañu ne waaw ña leen di fal ay ministre ginnaaw ba ñu leen jàppee loxo ca poos wala ñeneen ña ginnaaw ba ñu jàppee ay magistrat financier di leen saaga mardi tali ginnaaw ga lañ leen def ay ministre eh way samba laas eh, santaane yi nga xam ne nag moom lañ def nag ci rapport Cour des comptes googee waaw président Macky Sall day nee ko def réew mi quotidien gis nga of nag ne président daal dinay noppal sax nag wàllum justice bi de nee leen dem toog fee ci lu jëm nag ci wàllum rapport Cour des comptes googee parce que président Macky Sall nee benn commission la ñuy taxawal ngir mu daal koy saytu eh way Samba Fadel Baro ak Amadou Gueye waaw nee na sénégalais ci boppam ñoo xaarul dara ci rapport yi nga xam ne kon ñu ngi koy génnee la la wax parce que suñu kilifa yii pareeguñ daal ngir daal ci kaw ñi nga xam ne ñoo jaxat-jaxatee kon alalu askan wi xam nga ñi nga xam ne dégg nañu Mohamed mi lée muy tontu ci rapport OFNAC bi wala plainte bi nga xam ni kon Cheikh Oumar Anne daal koy plainte ni lée Nafi Ngom Keïta waaw wala toroxal bi nga xam ni kon Moustapha Diop daal koy toroxal bi nga nekk ca Cour des comptes kay da naan Sénégal fan la jëm ñii ku leen dégg naan Sénégal fan la jëm looloo jar a laaj nekkul ne dañoo bëgg a daganal sàcc alalu askan wi lée wi nguur gi kay wàng laa la wax ba Assane Seck day bu Sen TV ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga 2012 ah kenn mësta yaakaar ne buñ dawalee ñaari at jàpp ñetti at réew danañ fi dund ay tojaange di ay scandale yoo xam ne day mësu koo dund ba mu amee indépendance ak léegi ni lée ubbil enquête yéene kaay nañu président Macky Sall day waaw daal dinay jàkkaarloo nag ay njuumaam njuumaam yaa ngi ni lée président ci boppam daal dinay xam le ne danañ fi samp boo xam ne day mooy yëkkati ay daan yu saf saf daal di koy lal seen ndodd waaw waaye nguuru Macky Sall gi am na ci ay bunkal yoo xam ne dañ leen a jàpp loxo ci poos épinglé leen ña ngay doxi seen i soxla tiitu ñu rafu ñu laa la wax nice good fine eh waay eh waay exclusive yéene kaay xoolal ma na fi ngoom taa keroog ba mu génnee rapport ba daal di ci jam nguuru Macky Sall gi lée moom na fi ngoom taa keroog la gëj a am jàmm laa wax ay rapport doo laal avion doo aadama day droit de l'hommiste yi waaw bokku ñu gis-gis de parce que maître Pape Sène nee na dal rek dal rek Seydi Gassama ak maître Assane Dioma Ndiaye waaw nee na nañ yëkkati ay daan lal ko ci ndodd ñi nga xam ne dañ leen cay jàpp Moustapha Cissé ci Direct News nee na directeur yi nga xam ne kon dañ leen a jam ci nii ak ci nee laa la wax critique yéene kaa ne Cheikh Omar Anne Pape Alé Niang waaw livre ba day ab leen le jour Dakar Times en tout cas Macky Sall day la wax ci lu jëm ci wàllum xaalis bi administratif ba sax ba ci immobilier yow waay xaritu Macky Sall bii di Sadikh Bey yow yaa ngi loué immeuble ñu ne denni waay nga juróomi milliard nañ nañ leen ko tabax ab siège yow eh waay sama te yow fekkoon na port génnee lu toloo fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards ba jënd ci bërëb Dakar Times te gis nga projet wu Sadikh Bey bii a ah, am na lees waxul de am na lu làqu ca ginnaaw libération yéene kaay ne Aliko Dangote day ko topp ci mbuur day waaw coowal jardin public ba coowal suuf la maire ba fàllu si la day daan nañ ko ñetti weeru kaso yu muy tëdd allahu akbar ah maa la ko yéeni kaa gi ne ca jamono jooje clinique day Abdoulaye Dieye wàccee na Thiès APS wàcce na waa Sembix day naxarlu nañu li directeur général bi Thierno Birahim Fall def source ané coow la kay section recherche la mujje évidence yéene kaay ne jalis bi mouvement des insuffisants rénaux waaw ña ngay woo président ci sur waaw dal na ci kaw Moustapha Niass parce que Cissé Lo bokkatul ci député yi nga xam ne kon Sénégal da leen a tànn na ca parlement africain ba Moustapha Niass wax gërëmul député ya fa toogaloon Sénégal Moustapha Cissé Lo ne dara soxor rek iñaan iñ ne neti nañu bàyyi kàcci ak tiite laa tey évidence yéene kaay ne wàllum kaaraange day am na ca impôt domaine maar day taali jaan ye day ñoo fay lëmbee serpent ay jaan yi di mate maa la ko cay Sénégal su ko tëree xeeñ troisième mandat dañ ko fi tere te Guy Marius Sagna daa war a génn kaso bi boo paree mën a tëj Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm waa Cour des comptes ginnaaw ba ñu daal di jébbalee seen rapport yu atum 2015 2016 2017 Sénégal di Macky Sall léegi kay li des moom mooy xool ba xam lan la ci njiitu réew mi fas yéene def ci wàll gi ni mel sax autolikaay bii di ci quotidien daal dina ciy seq waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu ak ak yelleefu doomu aadama ci noonu nañu waxtaanee ak kii di maître Assane Dioma Ndiaye mi daal di jiite Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak tamit Seydi Gassama nekk directeur exécutif bu section sénégalaise Amnesty International ak tamit Pape Sène mi jiite comité sénégalais des droits de l'homme kii nga xam ne nag moom mooy maître Assane Dioma Ndiaye daal di gis nag ñu njiitu réew mi war naa fexe nag ba ay recommandations yi nga xam ne dañu ko fësal jëmale ko nag ci wàllu rapport yooyu mu fexe ba daal di koy dëggal boobu nag fekk na ne kii di Seydi Gassama daal di gis nag ni fu mu nekk ni sax askanu réewum Sénégal ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a nag laaj réew mi ngir mu daal di dëggal recommandation yi ni mel wante maître Pape Sène mi des droits de l'homme moom daal dinay xamle ne fu mu nekk ni daal teel na ngir ñu daal di wax ndax dafa am ay daan yu ñuy teg ci ndodd ñi nga xam ne daal dañ leen a jàpp euh, ci biir rapport yooyu mu pare ci nag daal di rafetlu sax commission bi nga xam ne njiitu réew mi daf koo fas yéene nag taxawal ngir ñu liñatu lépp lu jublu nag ci wàllu rapport yooyu culikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñi xamal ne njiitu réew mi moo ngi ko xamle nag démb ba muy amal euh, cérémonie de levée des couleurs moom moom di Macky Sall sax culikaay bii di L'As di ñu xamal ne ci ndajeb conseil des ministres foofu it daal dina fay waxtaan waxtaanee jëmale ko nag ci li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu rapport yooyu ndaxte sax daal dinay soñ njëriñ gu ñu dénk wàllu économie ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo ngir nag ñu daal di dëggal bépp recommandation yi nga xam ne daal dafa jóge ci rapport yooyu wanteew ci li bii di tribune moom nag la muy laajte moom mooy lan mooy wàllu yoon nag ci loolu yëpp ndaxte am na ay nit xam ne nañu leen joxuñ baaraamu tuuma ne dañoo luubal tey ji kon su fekkente ne njiitu réew mi waxul lenn nag jëmale ko ci wàllu yoon kon loolu nag moom mooy fexndeel ne wàllu rapport yooyu moom du du mujj fenn loolu sax moom moo tax boo coolikaay bii di la témoin daal di laajte sax ndax jotul nag ñu daal di fiy jëlee sax corps de yooyu nga xam ne dañuy def liggéey bu am solo wante nag bu ñu ko jébbalee njiitu réew mi moom du ci def lenn ñu wax nag ci xew-xew yi nga xam ne moom moo am fa li nga xam ne moom mooy ca APS di agence de presse sénégalaise ñu ngi ñuy ne am na ñaar ñooñu fa dàq kii di Bamba Kassé moom ñu daal di koy euh, suspendre coolikaay bii di direct news ne ñu nag mbir yooyu daal ñii nga xam ne da ñoom ñooy quotidien suñu natango yi di ñëwaat tamit ca xew-xew ya am foofu nga xam ne moom mooy ca APS waa SYNPICS di joxoñ baaraamu tuuma ko ko jiite di Thierno Birahim Fall di xam ne ne moom la bëgg a def foofu nga xam ne moom mooy ci kërub liggéeykaay googu wante ñoom ko nangu tey ko nangu ëllëg Le Soleil tey ji seq waxtaan ak Géraud Moussari moom moo jiite BP Sénégal di yëy yàbbi nag jëmale ko ci wàllu pétrole ak gaz nañu ko fas yéene yore tamit koppar gi nga xam ne nag moom moo ci nar a jógee moom mu daal di xamle ne li ëpp ci koppar googu de day des nag fii ci biir réewum Sénégal doomu réewum Sénégal ya nekk fa li xam ne moom mooy ca Chine rawatina nag ca Wuhan foofu nga xam ne feebar bii ñoom moom mooy ca Wuhan ne de moom mooy ci biir réew mi xam ne moom moo ëmb étudiant sénégalais ya nekk ca Chine ñoom loolu dong loolu rek da leen gis ñi réewum Sénégal moom ci boppam moom moo daal di xamle ne réewum Sénégal amul matuwaay yi tax nag mu mën leen jëlee foofu nga xam ne de moom mooy ca Chine ngir war leen mën a indi fii nga xam ne day moom mooy ci biir Sénégal jeexale ko nag ak mbir bu doy waar bi nga xam ne nag tey jii deewu culikay bii di Vox Populi moom la daal di xëyee nat mi ngi ñuy xamal ne benn xale bu am ci lu tolloog ñeenti at moom de la daal di euh, sàkku fa li nga xam ne nag moom mooy te Parcelles Assainies unité 25 ka def li ni mel nag mi ngi am ci lu tolloog ñeent fukki at ba pare njabootu euh, xale bu jigéen bi sax nekkete dañu koo xam ñoom nag daal dinañuy déposer ab plainte fa li nga xam ne nag moom mooy te police autolikay daal di gis nag ne ci ndoxteelu atum 2020 ba léegi daal am na ci lu tolloog ñetti xale yi nga xam ne daal daal dinañu leen sàkku li ni mel nag du dëgg du yoon moom la professeur Serigne Mor Mbaye daal di xamle ci biir colikaay bii di Vox Populi mu ci yokk di xam ne daal ne Sénégal moom fi mu nekk nii pays en la te it jot na nag ngir ñu def suñu kéemtalaay kàttan ngir fexe ba dakkal nag ñaawteef googu nga xam ne daal ma ngay lëmbee réew mi lii yi ñu leen di ñaanaan njeextalu bu sag jaww CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie CC et en ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ay. Alaaji Baba Ndiaye. mbaa yéene nga ca ginnaaw bu Cour des comptes fësalee rapportam 2015 2016 ak 2017 góor yeeg garmi yëpp njiitu réew Macky Sall ñuy déglu xool lan moo ci doon taxawaayam enquête ne njiitu réew Macky Sall daan na fësal ab kuréel goo xam ne nee mooy topp képp koo xam ne rapport Cour des comptes dara jokkoo baaraamu tuuma ci liñ la dénk yéeg bi ne en tout cas ñaar yi bëri na ci mbir yi ngir xam lan mooy mujjee ginnaaw fësal nga xam ne def nañ ko ci rapport yi le ndax la ca war dëgg danañ ko def am déet jamono joojee Khalifa Sall meerum Dakar ba wóor Karim Wade Ibn Abdoulaye Wade Tahibou Ndiaye Aïda Niong ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen doon tuumaa ci yoroon gu bon yat wi ñoo xam ne jege ñaale nguurub Macky na ko njiitu réew Macky Sall ne dana ko topp ba mu jeex tàkk le quotidien ne diggante gouvernement bu Sénégal ak kuréel yi nga xam ne ñooy topp yoroon gi ci moom coowali état bi seen diggante daal dara neexatul ndax kaddu yi nekkatul benn ndax ñëpp ñi nga xam ne OFNAC Cour des comptes ak IGE da leen tuumaal ne nañ leen ku ci nekk ci ñoom benn par benn amul looy yekkul kuréel lii ci lu ak lu ñaaw Sud Quotidien en tout cas kuréel yi xeex ak ak yeleefu doomu aadama yi réew taxawaay wutee la ñu am ci rapport Cour des bi nga xam ne jébbal nañ ko njiitu réew Macky Sall yéeglekaay bi ne bu dee maître Pape Sène mu ngay sàkkub dal maître Assane Dioma Ndiaye ak Seydou Gassama ne mukk ne du ci dal lañu bëgg mooy ay daan lalu ci képp koo xam ne lañu la dénk danga ci jalgati bi loolee tax ba la témoin ne ndax kuréel wi lañ bëj ak seetlu ñi ñu dénk alalu réew mi ndax jaruta sotti essence taal ndax njëriñam daal des na ci miim réew ndax rapport yi nga xam ne teg nañ ko ci kaw taabul njiitu réew Macky Sall lu mu bëri bëri ak lu mu mën a ci jagati ci réew mi bu dee njiitu réew mi Macky Sall tegu ci loxoom ngir protéger ay jege jegeñaaleem nga naa lay doon ci nguur gi ngir chantage opposition bi yéeglekaay bi ne la ca gën a doy waar yoo xam ne ci parti njiitu Sall lañu bokk ñu tudd leen ci ay jalgati yoo xam ne dañ ko def ci luñ leen dénk tey jii ay ministre lañu wala ñu nekk ñoo xam ne ay saagakat lañu nañu te ci seen saaga yi bàyyiwuñu magistrat yi ci Sénégal la tribune ne njiitu réew mi Macky Sall rapport bi nga xam ne Cour des comptes fësal na ko dafi ne ñukk justice maanaam yoon ci mim réew ne dafay samp ab kuréel goo xam ne mooy topp képp ku ñu tuumal ni li ñu la dénk dang ci jalgati Walf Fadjri moom ma nga ca assemblée nationale yéeglekaay bi ne Moustapha Cissé Lo rek démb ay bomb la doon wàccee ci péccum ndaw réew mi rax ci dolli di sàkku ci képp Sénégal na ko def ba mu jeex tàkk coow la ca APS pënd ba wureegul jafe-jafe dëgg moom ci diggante directeur général ba ak yenn ci liggéeykatam borom scandale au cœur de la République di Pape Alé amul lu ko mbàkke-mbàkke yu ndaw yi yekkul ci miim réew ginnaaw rapport bi nga xam ne def na ko ci kudd yéeglekaay bi ne mbàkke-mbàkke yu ndaw yi janook taskatu xabaar lañu gonte ni ki démb yebbu fa dëgg ci kaw Pape Alé ak Nafi Ngom Keïta doomi Sénégal ya nekk ca bitim réew rawatina ca réew Chine ca Wuhan fa la ñuy des vox populi ni njiiti réew Macky Sall si ci miim réew yéeglekaay bi Macky Sall njiiti réew mi ma ngay seetaan doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew ak jàngoro gi nga xam ne moo la tugg askan wu fa nekk njiitu Horizon sans frontières di Boubacar Sèye mbiri nag lajjite dëgg la bàyyeekoo ci njiiti réew Macky Sall te loolee nag du waree fam moom njiiti réew mi Macky Sall ñu fekk ci le quotidien ni amuñuy moyen naka noonu jumtuwaay yoo xam ne moo ñuy may ñu delloo si ndongo daara yoo nekk ca Chine kon lii mooy firndeel ni ndongo yi ginnaaw seen bi yuuxu wàllu nopp bu bon bale leen jox maanaam ci kaw gàttal te Chine la ñuy des l'observateur ne coronavirus daal amul Sénégal de waaye nag jur na fi benk nekk ñu yaatu ndaxte téeméer boo jël fanweer ak juróomi yépp ca la ñuy jaay fii ci miim réew Chine la bàyyeekoo meññeenteef yi bàyyeeko ci suuf ti te jolli fii ci réew mi di pétrole beeg gaz bi lu ci ëpp nag ci miim réew lay des ñu bàkku jëm ci làmb ji fekk fa raay ba mu nekk coordonnateur Luc Nicolas Enco ni jàkkaarloo Modou ak Ama Baldé munta am mukk te Luc Nicolas ma nga des ci kaso bi nee na nag seenu bëgg-bëgg jamono ji mooy def lu ñu mën ngir Luc Nicolas génn ci kaso bi Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux Tigre bi na génn ci mu nekk te ñëw jàkkaarloog moom wala boog bu dee dafa Papa Sow ak Siteu ci ITV ak ci i rajo lay xewee yëglekaay bi ne moom Papa Sow ne lépp lu mu mën ko def ngir duma Siteu Vox Populi ni ab tout tànk bu jigéen bu am ñeenti at lanu violé démb te ab waay ju am 25 ans moo ko def ca Parcelles Assainies unité 25 da dangay seet loolu rek Sénégal, bonjour. Faut-il brûler les corps de contrôle C'est l'interrogation qui barre la une du témoin quotidien, le journal qui revient sur la gestion des ressources publiques d'expliquer président lui-même, ils sont souvent utilisés comme arme pour faire chanter les opposants. Que retenir dans cette des rapports des corps de sur la gestion des deniers publics d'après le témoin quotidien Sinon, 57% seulement, 57% seulement de leurs recommandations sont mise en application. Et la grosse bizarrerie dans cette histoire autour de la piètre gestion de l'argent du contribuable par certains qualifiés de voleurs de la République à tort ou à raison porte sur un fait à savoir des responsables du parti présidentiel ont été promus ministres après avoir été épinglés, c'est-à-dire pris la main et même les deux mains dans le sac. Et même, indique toujours le témoin quotidien, un grand pseudo-kilife a bénéficié d'une des magistrats Voilà, d'où le titre qui barre la une du journal Enquête qui explique ou tente d'expliquer que celui qui fait face à cette démon au sujet du traitement des rapports des corps de contrôle, c'est Macky c'est Macky et c'est Macky Pour l'instant, Enquête le journal de nous renseigner que Monsieur le Président, son Excellence Nyangal National Universel Mondial, annonce une commission de suivi des conclusions des corps de contrôle, contrôle orienté de Sawai ou pas. tout cas, le journal buy naan ñeex donc ñeexu ñebe sont les rapports des corps de contrôle surtout que nous livre toujours enquête de nombreux doutes planent sur la suite la suite à donner au rapport mettant à nu des actes de banditisme financier chez certaines autorités de la République le président de la République a-t-il le pied à l'étrier pour l'instant retenons d'après Réumi quotidien ce que va faire l'actuel locataire du palais de la République et employé du peuple des rapports livre Réumi Quotidien sur le travail des corps de contrôle, à savoir un contrôle contourné. S'agit-il d'une voie de contournement nord Bon, pour ne pas perdre le nord, il y a la tribune qui semble s'intéresser à plus d'un titre à l'exploitation des rapports de la Cour des comptes, compte tenu du fait que Koulefes, Moleyaplo, eh bien, le journal du groupe des médias de nous apprendre que Neketeyo, Neketeyo, Maki décharge la justice au nom de quoi En tout cas, Elan son article en veut pour preuve la mise en place d'une commission pour exploiter les rapports de la Cour des comptes. On est où là Voilà la question qui s'imposerait au regard du fait que la justice soit déchargée dans l'exploitation des rapports de la Cour des comptes. En fin de compte, renchérit toujours la tribune cette fois. Sous la plume d'El Hassan Sall, l'impunité est décrétée dans la gestion des deniers publics avec le pouvoir en place qui les vérificateurs attitrés. D'où le titre de la chronique de la à savoir, le Sénégal assume pleinement, c'est-à-dire entièrement, le défi Guinness des escroqueries. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après mon confrère par Hassan dans la tribune, que c'est le règne des Adou Kalpé et autres Ndjoublang qui est d'actualité. autour de l'exploitation des rapports de la Cour des comptes avec Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sudcom révèle même que les droits de l'homiste sont à couteau tiré. Ne pas tirer sur une en sorte ce que fait Maître Papsen du Comité sénégalais des droits de l'homme qui considère qu'il est prématuré de parler d'absence de sanctions. Des sanctions, voilà ce qu'exige et en temps réel, s'il vous plaît, Maître Hassan Diomandiaï dans Sud Quotidien en soutenant que s'il n'y a pas de recevabilité, il est illusoire de parler de transparence ou de bonne gouvernance. La gouvernance sobre et vertueuse élevée au rang de pipeau. D'après Seydi Gassama, qui dans Sud Quotidien pense de la ko soit appliqué et par la force doole mbaam et comme il est dit mbaam gàtt na waaye si jur gi la bokk Dakar Times de titrer construction d'une nouvelle direction générale du port autonome de Dakar l'ami de Macky Sall le pote de Macky Sall se paye un immeuble à plus de cinq milliards par les temps qui courent s'il vous plaît en tout cas le président de la République Macky Sall doit envoyer l'inspection générale d'État au port autonome de Dakar d'après Dakar Times le de souligner la gestion d'Aboubakry Sadikh foncier, administratif qu'immobilier. En tout cas, l'ami du président Macky Sall a loué un immeuble engagé, la construction d'un nouveau siège, alors qu'un site a déjà été acheté par la direction générale du port à hauteur de 17 milliards de francs CFA. En entendant ce que prend pour agent comptant, le journal Les Échos porte sur les propos de Maître Djibril War. En tout cas, Maître Djibril War prend la défense de Maître Abdoulaye Wad. En quoi faisant? Eh bien, en déclarant à la une des Échos qu'Ilif est Waouh, waouh. En tout cas, dans les échos, Maître Ward de il est temps que l'on rappelle à chacun de ces indisciplinés ses origines. En attendant, terminons avec l'observateur Lobs qui reparle de l'épidémie en Chine, histoire de révéler le coronavirus impacte le Sénégal. En tout cas, le président Macky cloué au sol, le ministère de la Santé investit le port de Dakar aujourd'hui, la douane sur le qui-vive, les inquiétudes autour des porteurs sains. En tout cas, l'observateur Lobs de révéler que le coronavirus impacte dong mais laaj ci dong de wooy fu ñu jëmati bon vive le Sénégal